ci diggante maraak masé mbokk yi jërë ngeen jëf seen ànd ak TFM télévision Futur Média jàkkaarloo bi ñu am mbégte am ci gan bu mat gan président Bougane Gueye Dany ñi ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu euh, Pape Abdoulaye di nuyu ñi ma fekk ci plateau bi ñëpp di leen jox seen euh, cër. Hmm. di sant aussi euh, téléspectateur yu TFM ñuy seetaan waxtu bi ci jàkkaarloo. yaa ngi feggoog euh, Adama Sow Adama Sow it euh, homme de média ñu ràññee ci lool euh, buñ demee ba ci biir dinañ xam solo teewaayam ci plateau bi ndax kumpa léeg-léeg da ciy baax ba ñu yegg ci cappaandaw li sujet bu njëkk bi parenage beek fiñ ci toll xam naa ni parrainage moom dafa dafa xew. Euh, yow li dal ñu bëri ci parrainage bi euh, dalaa dal yow tamit fukk ak juróom-ñeent yoo xam ne mun nañ ne bu doon examen premier tour la ñu toogee juróoma at mi ñu yóbbu woon deuxième tour war leen saytuwaat wala oral de control comme damay misaal di wax waxi examen ñett ñoo xam ne app bi tey la woon pour ñu xoolaat seen dossier bokk na ci Idrissa Seck juróom-ñett yu mu waroon mottali ci Sigicoor nee nañ ful nañ ko joxe 22 fois liñ leen euh, laaj ngir mën a mëtal Euh, sàkkuteef bobu joge ci euh, conseil constitutionnel Nam nak ñun duñu conseil constitutionnel waye laaj bu ñëk bi euh, moy lan gal encore sa parrainage lan lañ la jox sa PV motif yi waral mujjuta sorti waye surtout ndax objectif atteint c'est un peu provocateur bu mkay wax ci parrainage bi l'objectif est atteint quand je le dis moy objectif atteint ndax candidat yi ségg nañ jul bari wala objectif atteint ndax nguur gi mujj na faagaagal ñu bari ci opposition bi waroon jàkkaarloog Macky Sall loo ciy tontu. jërëjëf Pape Abdoulaye euh, di rafetlu kàddu yi nga wax li am solo rek mooy kàddu question yi nga xam ne posé nga ko yëpp ce qu'il faut d'abord c'est de reconnaître que Macky Sall il a le courage de sa logique lépp li mu waxoon def na ko. lan lan fàttali ñu ko. waxoon na ne dina réduire l'opposition à sa plus simple expression def na ko na ay opposants yegg nañu ci parrainage imposé nako en un vote sans débat a nañu ko yegg nañu ci gisaane bi premier ministre waxoon ne dinañu am lu tolok 5 yegg nañu ci li nga xamné rek mom mo am solo mooy lima dal comme li nga wax dal ñeneen ñu satisfaction bi it il faut ñu nous objectif bi pour man c'était d'avoir un autre Sénégal parce que de me ne un autre Sénégal est possible un autre Sénégal sans ce système qui tire le pays vers le bas qui nous met dans le lot des pays les plus pauvres du monde des plus endettés des plus corrompus des plus soutenus liggéey bi def liñu waron def def nañ ko mais bu fekkee ne da nga jàkkaarloo koo xam ne moom mooy segg mooy tànn ña muy bëreel da ngay obligé jaar ci yoon bañu wax tout en sachant que bo jaaré ci yoon biñu wax sa yéene moy jall comme niñu ko défé mais demb gis nga né def na conférence de presse mm-hmm. pour wone ci gatché pour wone ci mbettel pour wone ci ruus guma ma ci suma rew PV biñu guenné biñu lajé ñun dañu déposer le maximum moy liñu ñu laaj 66 819 ñu def seeni segg ñew ne dafa am ñaari catégorie rejet susceptible d'être régularisé mm-hmm. ak liñu wax rejet non régularisables. Si nous yi ñu né ñu am nañu 15000. Waye ci rejet yi nga xamné mom moy yi ñu Donc du coup de facto on est éliminé. Mm-hmm. Alors biñ ñu ko joxé ñu nangu jël document yi dem tok ku ne rek tekk war na yoon motax demb dama ci jóge dem gisi la société civile la preuve ñom société civile dañoo waron def conférence de presse jeudi dañ ko reporté reportée. waron def tay ci vendredi bi dañ ko reporté pourquoi à cause de ça à cause de cette nébuleuse que je vais vous montrer pour Sénégal Gisco xam naka la mbir yi demee bi ma demee gis société civile d'abord dama ne leen dañu ma wax ne mandataire bi bu ñëwee dañuy jël clé USB bi dugal ko ci machine ne dañuy vérifier mu ne ma waaw ma ne ko nee nañ ma dañuy copier élément yi mu Ndiaye Cissé mu ngi may dégg mu ne ma effectivement dañuy copier élément yi mm-hmm. professeur Babacar Gueye firndeel ne dañuy copier élément yi mané si copier éléments après nan la def ñu dañuy jël clé bi def ko ci enveloppe mettre ko sous scellé mané si le contenu est copié pourquoi mettre sous scellé le contenant et lolu mu indi tay qui gi may wax parce que ci les rejets euh, non remplaçables. Hmm. 36 000 et quelques. 30 800 oui oui oui. dafa am rubrique bu wax motif de rejet non électeur non électeur. Mhm. non électeur xoolal ñi waa Thiès la nga xool un bii ma wax dama jël ci 2500 feuilles ñu jox recto verso nga numéro électeur neuf chiffres Comme vous nga 9 neuf chiffres ou gis nga sept chiffres ñun document le les numéros d'électeurs étaient de neuf chiffres Les document preuve yi ñu ñu ne c'est des documents qui sont avec les numéros d'électeurs qui sont passés à sept chiffres kon jumte bi ci yow ci pour yow ci ñom la lan mo indi bi hmm. je dis xama man duma bi li amé lima lay lay ay la euh, numéro d'électeur lépp luma colorier hmm. ay numéro d'électeur la yo xamné dafa à 7 chiffres ma société civile ma wan ko ne est-ce que gis li ñu non mané est-ce que xam ngeen ne clé yi dañ ko clé bi dañ ko copier ñu né wuy copier nañ ko est-ce que assurer wu won ngeen ne données yi effacer nañ ko ñu né non effacer wuñ ko mu Ndiaye Cissé mu may dégg professeur Babacar gey mu may dégg ak sen informaticien ak benen wise yo xamné mu ngi tuddu Ndiaga mané len logiciel un logiciel c'est pas un esprit logiciel dañ koy programmer est-ce que paramétrage logiciel bi vérifié je parle bien de la société civile Nous, avons njaay sise ñu ma amuñu accès ci logiciel bi xamuñu nu ñu paramétrer logiciel bi limay wax ci télé la nek ñu may dégg kon c'est ben fait les rejets pour motif non électeur mais dafa am les rejets motif de rejet région de vote non conforme ñi mala wan ni Louga lañ dëkk kenn ku nekk ci ñoom gis nga kii sagata la dëkk kii kaneen njob la dëkk ñii Louga lañ dëkk waaw ku dëkk Louga boo woteewul Louga Ziguinchor ngay wote alors la conclusion c'est rejoindre le professeur Issa Sall qui disait que fichier bi ñu jox conseil constitutionnel du fichier bu baax bi parce que bu fichier bi baaxoon ñoom du am ay nit ñoo xamné ñu ngi ak seen carte mm. électeur ba paré ñu ne dëkk ba ñu waree du dëkk ba nga xamné fofu lañu la dëkk donc c'est des imperfections mm. c'est une tromperie c'est une escroquerie à grande échelle Bo xamné def nañu ko muy un coup dur pour la démocratie mm. mënoo nek ci langue né da ngay bëre waye yow yaay tànn ñi ngay bëreel waaw ah, mais loolu yéen a ko nangu ba euh, depuis début bi nag <laughs> Pape Djibril Fall yow euh, yow laay njëkke Birima naa la jox kàddu voilà dana am loo ci bëggoon wax bismillah Birima ayca demal comme yow yaa manifeste waaw man balaa maa commencé li mu wax man am na man ah, duma doo rek mën a démonté li mu xam dara amu ci mais li may njëkk a commencé mooy montré sama déception ci personne monsieur Bougane Gueye Dany nawoon naa ko bokk naa ci ñi ko njëkk a xam parce que dañoo dëkk à Saint-Louis dëkk moo fi Malang Faye ñëw maa ngi dëgg maa ngi dugg Saint-Louis 1993 maa ngi ko xam bi mu nekkee rajo Golbert Diagne xëy na mu sax du fàtte na ma c'est possible nekk nit ku jóge fu sori liggéey réussite am réussite ci réew mi mu nekk mérite man na woon ko ndax loolu trop mais fan yi li ma dégg mu koy génn ci gémmiñam

bi mu rencontré Macky Sall fan la jaabi rencontré Macky Sall lan la def pour Macky Sall recevoir ko. man mii di wax a yéen moom ñëw ci man directement. non am na magum géwël bu mag ci réew mi ku baax ku mu dem seeti moom. s'il te plaît Birima xam nga xam nga je sais mais c'est pas le débat xëy na dinañ c'est important mën nañ ci mën nañ ci yegg. mais là il parle waaw non mais nit ku xam nit di opposé wu. jàkkaarloo le problème yi bu rencontré président yooyu yëpp ci biir débat bi ci kanam war nañ ko laaj dans quel ñu waxtaanee même ma ñëw kooku ñëw ne ma Bougane Gueye na dafa bëgg a rencontré Macky Sall dafa ko bëgg a jàppale man ko waxee man ko waxee doyu ma na ko waxal boppam na ko waxal boppam parce que dégg muxtalaana ñoom président. Birima s'il te plaît je te promets je passe la parole à quelqu'un quand même euh, c'est important non parce que dafa dafa notre président de ce matin ci suis en RFM. sénégalais utiliser des mots à mon président de la ça m'a choqué et je le conseille.

lu ma ko yow may wax yaa ngi toog jàkkaarloo moom fi fi sa tur. Bougane ki a demandé am Macky Sall da nga xam nga la mooy problème li gën a bon ci àdduna bi nga liggéey ba réussir yàlla jox la tolof tolof ñëpp xam ko man xam naa ko xam na dara ndax li wax ma Sall xam naa ko ndax ñi tax nga responsable Sarr la en contrepartie ci la bokk. man man Macky Sall daf ma recevoir. oui. man Macky Sall daf ma recevoir oui. oui euh, euh, oui euh, et oui je confirme oui. Birima dama ne maa ngi wax égal maa ne raconte pas de ko Non. porte la Macky Sall. vous vous envoyé des SMS à la famille de Macky Sall. vous racontez vous racontez des histoires. comme tu veux vous racontez des histoires xam j'ai accepté. tu plainte demain. non non je vais porter plainte. da ngay santage. non non je vais posé des questions est-ce que. tu as dit en tout cas je te confirme ça y est ça may même pas même mégal tu as dit tout de suite devant tous les Sénégalais que da ngaa génne boo courage génne benn fichier bu la bu la conseil constitutionnel jox. ne sept chiffres moo ci nekk. génneel contraire bi nga jox conseil constant n'a ma neuf chiffres la ko joxoon chiffres yi la ko joxoon. mais ça je l'ai ça je l'ai non na ko mais tu le montres au Sénégalais. on l'a montré dans la nga attends Bouba déglu am ñëpp am nañ xel. da ngaa jël sa dossier déposé au conseil constitutionnel conseil constitutionnel répondre le la numéro bi baaxul. waneel la contraire de sa numéro bi baaxul mais doo génne benn non rek. ne baaxul mais yow yow yow déglu nañ la Birima s'il te plaît léegi déglu nañ la s'il te plaît Birima Birima déglu nañ anam dossier bi nga déposé woni deuxièmement li tax sax ki wour ko gëm li tax sax ki wour ko gëm ci danger pour la nation sénégalaise da nga devant tous les sénégalais devant un huissier de justice mhm. nga ni j'ai 700 000 voix signature 700 000 signature même ñu dindol 40 000 wala 5 63 000 yëpp mhm. waroon problème à 24 heures mhm. pour pour pour pour pour joxal ëpp loolu waroo mën a joxe sax 30 000 lu euh, donc xam nga xam nga xam s'il te plaît non non s'il te plaît s'il te plaît yaa ngi wax depuis sànq

bi ma nee damay ñëw fii ku ne wax na ma ci. <coughs> man kenn yorul sama sànqal kenn ëmbul sama sutura. demoon ànd ak Macky Sall moo gënoon yomb ci man. ba fi may waxanteeg yow léegi nii nii nii kilifa woo na ma. pour ma dem ci ma bañ. non Macky Sall non non non s'il te plaît Birima euh, tu vas nous écouter on a quand même. Pierre oui moi, Pierre Pierre Pierre Pierre je m'adresse au réalisateur Pierre s'il continue coupe-moi son micro. quand même non ne veut pas de lui. Euh, s'il te plaît on s'écoute. c'est faux. Euh, il faut c'est pas vrai. Bougan, parle-moi man ngay waxal. je t'en prie toi aussi arrête sinon on coupe ton micro. Mané, ne xam nga c'est normal. Euh, c'est normal s'il te plaît ferme le micro s'il te plaît parole au nom de ceux qui nous merci je vous en prie je parle aux personnes civiles. Euh, prie. Euh, euh, non grand li mu li am solo. ce sont les Sénégalais qui nous écoutent. il y a cinq il y a je sais pas. Mayel juste Charles. waaw 30 secondes et on te retourne la mm, parole. waaw ñu wàccee affaire c'est vrai que les enjeux sont très importants. il y a pas d'enjeux ici les enjeux quand je dis enjeu mooy que nit am na loo ci def. Mm-hmm. lu bëri mu am fu mu far. merci mais ce qui est le plus important. – Moi, quand même nous devons respecter les gens qui nous regardent. Absolument. Moi, je ne vais pas m'asseoir sur un plateau avec des gens qui ne, respectent, qui ne me respectent pas, qui ne respectent pas les gens qui nous regardent. Mm. Dans la mm. club, mm. on peut ne pas être d'accord. Je ne suis pas d'accord ou que je sois d'accord, l'essentiel est que nous le fassions dans les règles de l'art. Je suis désolé de dire les choses parce que ces deux grands messieurs qui sont ici, respectons ces gens-là. Ça, c'est très important. Eh, Est-ce le monsieur qui est le s'il te plaît. Charles, non, Charles, Quand on on retourne la parole à, ah, ah, ne mérite pas mon respect. Mais si tu l'as insulté, mon président. dis tu vas nous écouter au moins quand même, s'il te plaît. Quand même. Sinon, tu viens animer à ma place. Je te promets, comme les Charles on peut vous laisser le plateau. Absolument. Bougan, continue. Je peux Mais bien sûr que vous pouvez. Merci je disais, pas plus tard qu'hier, pas plus tard que Dem, oui. Gaston Beng m'a dit il fait partie des émissaires. Moi, je tout à tout. Quand je m'ai boo jëlee sa téléphone suis nga je ko mu la man encore une fois Comment je xam suis gor la xam suis Je lay Macky Sall pour Gisco? buma ma bëggee gis Macky Sall duma jaar ci nit premier ministre buma ko soxlaa woo ko jot ko la preuve les enseignants bi ñu amee problème biñ ma woowee man maa woo premier ministre lijjanti ko premier ministre Boun abdoulaye Dionne mu ngi may dégg xam nga am na loo xam ne hmm. bu ma fa tolloo ci réew mi ba koy lijjanti hmm. wax dëgg yàlla am na ñoo xam ne du ma hmm. génne ci ci ci situation yooyu euh, bu ma soxlaa premier président xam naa fu may jaar pour jot président kon du ma jaar ci kenn dama né buma ma soxlaa président man xamna fumay fu may jaar du jaar ci kenn donc dama bëgg bu ñuy waxtaan ñu nekk ay nitu responsable parce que Sénégal ñoo ñuy seetaan man lima wax ay mbir yu leer la ce que j'ai dit sur le conseil constitutionnel yaakaaruma ne avocat au conseil constitutionnel tok na fi lima wax c'est des preuves tangibles li ma wax ay la conseil constitutionnel jox ma je ko ko ci télé def conférence de presse wan len fichier bima guenné fichier bima jox conseil constitutionnel guenné ko ñu li nga conseil constitutionnel jox. alors dama dama wax wa société civile yu conseil constitutionnel ñom di superviser. Mhm. kon Lima wax ay donc yow donc li nga wax yow ça appelle deux interpellations voilà meun nga yi nga xamni ni nga wax lañ la à sept chiffres ya nga ki nga xamni neuf chiffres la mais aussi simple donc évoquer nga aussi rôle de la ko démb wane naa ko demb ci conférence de presse bi ñu def diffuser ko Sénégal yépp teg ci sen bët. ouais alors Pape Djibi yow lay jëk interpellé dans ce débat là objectif euh, atteint comme je disais Non objectif atteint dans quel sens Segbi ou wala faagaagal opposition bon en fait c'est très compliqué comme comme question Euh... non par rapport à moom mi nga xam ni daf ko dal wala dafa nekk ci cas boobu ak euh, élément de réponse yi mu indi waaw en fait kenn la ci ñi nga xamante ni yëpp dañoo retrouver dans ce dans ce cas Absolument. Euh, moom xëy na li nga xamante ni moom la comme élément peut-être que d'autres aussi gis naa ñoo xamante def nañ ay conseil ay conférence de presse d'une façon aussi virulente aussi que nim ko waxé dal di nakarlu li nga xamanteni mom lañ jëlé conseil constitutionnel donc man tay pour man euh, peut-être que feuille ak contestation yi c'est vrai que baxna pour population bi xam ko comme que ñom ñom nga demone jël seen signature né da ngay dem fo xamanteni dañ fay dañ koy saytu ndax hmm. baxna ou pas xeyna na soo fa jógee euh, sa conscience warna na la may nga daal di jàkkaarloo waat ak ñoom ne leen ngeen amone yene ci man ngir ma bok ci jongante bi li motax bokuma ci li moy fi nga xamanteni fofu la jëm. absolument donc man euh, c'est peut-être une interpellation. Mm-hmm. par rapport à ça justement peut-être qu'après on on aura la chance de revenir sur son profil et tout. Mm-hmm. Euh, euh, avec les perspectives mais par rapport à ça moy légui après constat bi légui lan ngeen di def. Euh, le plan d'action lan ngeen di def fan ngeen jëm d'autant plus que moom euh, chargé de communication wala kenn ci chargé de communication bi dafa waxoon même buñ ci eggoon ci second tour du du jàppale kenn te récemment yaakaar naa Cheikh Tidiane Diop la su ma juumul te récemment euh, dégg nañ ñu pur ak Sonko xëccoo donc man bu fekkee ne dans le cadre du parrainage ak mhm. par rapport ak bémol yi nga xamante ni moo tax ñu wax ne mënul bokk lol moñu ci tel après peut-être qu'on reviendra sur dinañ ci première interpellation la dañuy may nga nga nak ndax yooyu yëpp diñ ci tontu Bougane euh, alors euh, benen intervenant Charles Fay waaw d'ailleurs euh, xam nga le parrainage wax nañ ko fi du ben du ñaar ñett quoi bien avant notel hein quelles les perspectives bien avant wax nañ ko fi mhm. commencé ko avant deadline ba ñëwaat si ñu ngi si encore nous avons 27 candidatures <laughs> à la candidature présidentielle 27 multipliées par 66 euh, 800 et quelques nous tourne autour de 1 500. 000. 1 500 000, c'est le sixième à peu près du corps électoral global. Mhm. Nous avons les doublons qu'il y a dedans on doit tourner autour de 30 de 2 millions et quelques. c'est un échec lamentable du parrainage on ben que soit sénégalais xamnu soit ñun sénégalais xamnu luy parrainage. Hmm. donc ñuy parrainer war alors que nous, le wara war Nous parrainer ñu parrainer deux fois voire trois fois voire quatre fois à quelle fin est-ce que xamnañ ko soit dañ ko def sciemment. Hmm. sciemment pour couler des gens ça veut dire c'est l'esprit même de la démocratie qui est parce que d'esprit démocratique, de parrainer, ce n'est pas de voter pour quelqu'un, c'est Maïko. Nous avons une chance, est-ce que nous avons une chance C'est parrainage, hein. de voter pour moi. Mais dans la manière, dans la forme, vous ne fait, vous ne parrainer quelqu'un, déjà c'est un vote C'est l'expression d'un suffrage. Je ne vois pas pourquoi vous êtes candidat, mais parrainé par Dibi. À mon sens. Vous faites on ne me donne pas la possibilité de parrainer deux à trois personnes donc dans la forme il y a un problème et dans le fond Ben affaire moi je l'ai soutenu le Sénégal n'était pas prêt pour cette forme de parrainage citoyen à ce niveau trop important j'ai eu un candidat hein, en 2012 je suis passé par là 552 communes mais dans chaque commune je prends un parrain de 552 poules, ça me fait 552 parrains à chaque parrain je lui demande simplement de m'apporter 10 ñu dans chacune des 552 communes ça me fait 55 200 vous pensez que 10 000 ça me pose un problème et je dis nous avons 45 départements dans 45 départements je cherche des gens qui sont 45 ma ne indil leen ba 100 yu ngeen 100 yooyu na ku si ma 100 yu ñu wóolu ñoo nous avons dama ko cloisonné bokkul ak commune région on est 14 mais ut 10 000 les chances de perte fan la est-ce que mu ngi ici communes yi le région euh, département ou le les chances de perte sont beaucoup plus importantes dans les régions mhm. ça c'est pas mon souci 14 multiplié par 10 000 140 100 on est d'accord 140 000 là-bas je peux avoir des doublons en pagaille donc vous voyez, là, mhm. dafa c'est pour ça que je disais le problème du, il y a un grand problème le problème du parrainage il est d'abord technique technique c'est une occupation tout de, de tout le terrain des 552 communes quand on va être chef d'État Ce n'est pas une affaire de mairie Mm. C'est une affaire de chef d'État. Mm. Je dois m'arranger pour que dans les 552 communes de ce Sénégal-là, nous am ñoo xamante que lu pour de bi est-ce que nous nañ si wala de si du may ma chance pour que mën a ces élections, élection électorales. campagne électorale Nous avons décidé à l'arrivée après m'avoir écouté réfléchi tout ça nous me déet désolé Charles mais affaire vous dit, nous ñun de pas c'est ça un vrai parrainage et je pense que j'ai d'autant plus mal parce que nous avons affaire on n'en avait pas besoin Tu bu bëri bi on n'en avait pas besoin. non on n'en avait pas besoin. Hein? On n'en avait pas besoin. Il est vrai que, mais il est vrai que, on a empoisonné notre, notre démocratie sénégalaise Mais qui autorise les partis Il y a un moment où il faut que les choses arrêtent. On ne peut pas avoir 195 candidats à la présidentielle dans un pays de 15 millions d'habitants où il y a 1,3 million 300 et quelques mille foyers. Ce n'est pas, ça n'a pas de sens. Ça veut dire oh, la fonction présidentielle est dévoyée. Mm-hmm. Respectez tous nous, président de la République Sidekabi. Mm mm-hmm ba nga fonction c'est la première chose que deuxième chose nga le président de la république Tu es le premier bonhomme à am lo doon wax bala ngay président de la république sénégalais yi taxaw askan wi té lengee jox yow nga j'ai fait les choses à ma mesure mais tu ne respectes pas la démocratie il y a un manque évident d'élégance dans ce pays-là mm. et il faut le dire et il faut le regretter alors Malal est ci premier tour de table bismillah merci beaucoup hein déjà moy nuyu Bougane parce que sama xaritou gaayen keuse la xaritou ñagas la ñom ñom bokon classe donc euh, maa ngi lay nuyu bu baaxa baax di wax ni aussi mo nañ wàcc tempérament bi coow jibul dañuy waxtaan parce que et puis ñu bañ a personnaliser discutons de la question il s'agit du parrainage bu ñu personnaliser parce que bu ñu personnaliser après affaire yi day day compliqué dama bëgg juste évoquer benn affaire bu ndaw bu Charles wax Côté confiance. Mhm. mais wóolu boo wóoloo benn nit kooku wóolu 10 personnes. on est au Sénégal le rapport de le contrat de confiance est rompu c'est-à-dire digga kat ngay que sëgam nit moi trahir ou wala trahir Domum, ou trahir trahir xaritam intime on ne peut pas fonder le, truc sur la confiance déjà de côté ce n'est pas un argument nga grand qui qui ne me semble pas tenir nga balle. Le ma bëgguñu wax que par rapport à la situation Bougane il a évoqué que le ci huissier 700 000, fa nous mhm. diggante 700000 nag ak ñu exclure d'office quand même pour moi, bu nous réfléchir tout, nous Je ne quand même je ne le conseil constitutionnel ne peut pas voter à ce niveau Il y a une possibilité nous, 7 chiffres média et puis en plus un média très très regardé une émission très très suivie il mm-hmm. n'y a pas meilleure plateforme que nga les 9 chiffres pour comparer mm-hmm. parce que aussi euh, mm-hmm. puisque tu détiens la preuve il faut te déplacer avec la preuve y ko comment, rien ne t'en empêche leneen que tu jàngaat ci situation bi mooy ndekete yow nga am télé nga am radio nga am nga am lo munti am nga nek Youssou Ndour élection fi Sénégal benen affaire mhm. benen affaire la c'est-à-dire dou ay affaire de dou yëfu kecew kecew élection dou wey damay may Bougane wala may Youssou Ndour parce que Youssou Ndour également damna na euh, je je sais pas au niveau comme hein? ah parrainage parrainage et cetera et cetera élection am na élection yi fi amoon au niveau de la Médina c'est l'opposition qui a gagné. donc il y déterminant eu ci li nit ki nekk en tant que par rapport au turam de média bi Mouyor, c'est-à-dire sénégalais L'année leneen moo leen di influencer. L'année moo de di influencer. li ci intéressant c'est que je suis un peu surpris bien que je suis très content de voir de jeunes candidats parce que dès que foofu forces il nous faut de jeunes candidats il faut une alternance générationnelle mhm. ñoom Bougan c'est bien N'Yom Sonko c'est bien etc. d'autres sont bien mais le ton de Bougan, euh, mu am Dora am élévation Dora am non ben sévérité bi ak colère ou euh, c'est-à-dire tout à l'heure même dans les coulisses je lui disais les questions sociales il nga évoqué qui la table moi j'aurais bien voulu que tu les évoques pendant tes déplacements un peu partout c'est-à-dire c'est finalement en fait conseil constitutionnel entre guillemets je vais essayer de me déverser ça me fait penser à quoi est-ce qu'on n'est pas dans le dilatoire est-ce qu'on n'est pas dans le santage, effectivement parce que Cheikh Alassane bar barki démb président recevoir na ko ñetti fan yii passé mu ne dinaa bindal président way ah oui. la koy bindal. naa ah. Cheikh Alassane Sène ah, moom waxoon nañ ko ni discours non non de c'est-à-dire euh, puisqu'on est des hommes ah, de bu dee li wax non du yëfi kecew kecew mm. c'est-à-dire. ñun ñëpp ku ci nekk ci ñun boo yoree télé tu as un instrument. Mm. bi nga xamante ne ci nga mun a wax ak sénégalais parce que sénégalais yi jàpp nañ ni malal sàcc na wax nañ ko télé dëgg la. bon à mettre télé tu es capable de manipuler l'opinion et puis ils font des chiffres avec les populations qui les regardent donc pour moi, on doit être beaucoup plus exigeant et beaucoup plus sérieux ba pare dindi étiquette étiquette ñu gënal éthique parce que pour moi, éthique c'est très important. alors comprendre nañ la malal merci Papis Diaw. alors pour le premier tour de table. waaw man déjà damay ñëk damay encouragé Bougan pour féliciter. félicité. Mm-hmm. un jeune. J'espère qu'il que dina inscrire vous renouvellement que xamante renouvellement classe politique Les jeunes sénégalais une initiative am des ambitions. Mm-hmm. une ambition ne peut pas être démesurée. Mm-hmm. moi je cautionne ça. Euh, pour revenir sur le sujet euh, parrainage l'esprit il est bon l'esprit fondamentalement parlant l'esprit il est bon échec ou échec selon les camps ku mm-hmm. appréhension ak ni mm-hmm. mais ce qui est constant aujourd'hui il y a une récurrence de contestation des candidats à la mm-hmm. candidature il y a un temps soit peu un droit de regard et un questionnement Où est-ce que ça n'a pas marché, il faut que qu'on sache que nous sommes tous des Sénégalais et qu'on n'est pas hors du territoire faites qu'on est euh, Kaou Bougan Kessel, mm. on pourrait dire peut-être que c'est du dilatoire. Mais dès lors qu'il y a autant de contestations, mais fan le, fan le théâtre, fan le, fan le tapalemi, le l'insuffisance, nek. Euh, mais ben aspect il est, il est totalement juridique. xam nga conseil constitutionnel am na il lu ko ko fort ci wàllu banqaas banque ci c'est la cour suprême mm-hmm. on te dit que cour suprême le droit de recours et tout mais am na ay dispositions à xamante tu peux même renvoyer la copie moy euh, euh, réparation erreur matérielle mmh. c'est dans les dispositions de la loi mmh. ak ak rabat d'arrêt bi nga xamante ne tey moom enjeu euh, argumentaire bi au niveau des avocats sur l'affaire Khalifa Sall donc c'est pas encore épuisé mmh. euh, beneen aspect bi bi nga xamante ne am solo euh, conseil constitutionnel baxna baxul mais amna na lu ñu renforcer ya a sept personnes ñu renforcer ñi ñew pour xol seen ligue nan lañ koy saytoo na lay baxé pour man aujourd'hui il faut comprendre les les les les les perdants. Hein. non d'ailleurs Bougan mi évoqué na ko te ci euh, euh, problématique bi la rôle lu set yi nga xam société civile. lañ ko yóbbu yaa ngi coupé sama point. oui mais je veux dire c'est important. parce qu'il doit peut-être on doit revenir dessus. parce que dañu war a dañu war a comprendre ñaari aspect moi, aspect passionnel bi passion bi. Mm-hmm. ak li nga li wax ak mm-hmm. euh, pour ne pas monopoliser la parole. Mm-hmm. c'est pour dire qu'il y a d'autres formes de contester et que ben mi moy nit comme je sais pas par exemple bougan la mesure nous impose au moins d'écouter sa version. Parce que moi, il, est candidat à la, il a été candidat à la candidature. Il a été au contact de l'institution, avec les acteurs de l'institution. Mhm. Il sort de l'institution avec un argumentaire. Il faut avoir la mesure au moins de l'écouter. En attendant, institution concernée, répondre par rapport à, mhm. la préoccupation. Parce que c'est un Sénégalais. C'est aussi simple que ça. Maintenant, tout ce qui sort du cadre du parrainage, c'est personnalisé, ça ne nous intéresse pas. Absolument. Alors, Bouba, qui premier tour de table bi ak euh, laaj bi euh, objectif atteint négativement ou positivement Là, il faut moduler sax léegi question bi ndax segg bi euh, ndax bi atteindre objectif et naka atteindre et comment. Oui, mais xam nga xam nga bon ni nuyu Bougane quand même parce que am nañu ay ay rapport yu am solo. Mm. sama xarit la. Mm. donc bon c'est vrai que émission bi mom bu bu générique bi déparé euh, on est des amis mais on n'est pas des amis en même temps. Mm. on se dit les choses. je pense que dañ koy wax ak dal. Ah, euh, c'est important mais bon émission bi aussi mo teudé noonu. parce que euh, nit ñi war nañu mën a les yeux dans les yeux. dafa am fu ku togon fi la dernière fois semaine dernière Cheikh Alassane candidat euh, boo xam aussi voilà le parrainage bi mu am yenn argument yu mu avancé il a dit à la limite la même chose woo journaliste yi këram tegal leen ay kayit né len amna assez de signature bima ko waxé mané ko journaliste yi ngi ñëw fofu sa kër en cinq minutes ñu vérifier hein parce que amuñu fichier amuñu voilà parce que parce que lutax ma kay wax mom moy ah, dañu nekk ci ben pour man mais un tournons pour Amsolo. Il faut que nous fassions tout le temps le Sénégal. Nous. Moi, de il y a des alternatives. Il y a des jeunes qui ont 50, 55, 60. Ils ont un saut politique. D'accord, avec Papis, vous avez ben, ben, qui, ambition de, démesurer. Je suis d'accord, aussi parce que nous sommes dans le monde Nous sommes tous les deux. Nous sommes des les ñëpp bëgg faire lépp en même temps dans tous les domaines jeunes yi nga xamné ne am nañu doole wala am nañu rêve ñu ci gëna bëri on peut pas se retrouver avec 100 personnes qui veulent diriger ce pays ce c'est pas possible mm. parce que je pense que Bougane bi bu dee dafa poser candidat candidature am On la dernière fois bu nit né dama bëgg candidat Né len ko lo tudd fo dëkk fo joggé lan nga fi def foo se servir, se sa mm-hmm. c'est très très important je pense que l'on ne doit rien imposer même les opposants mm-hmm. les gens ils nga xam ne prétendre ñu. Mm-hmm. xam aussi quelque part dañu nekk ci de dëkk bu du Sénégal parrainage Charles sénégalais yi xamuñu parrainage bi de honnêtement comprendre wuñ ko. xam nga jóg ah dugg sa oto jënd sa essence dem ba ci bureau de vote bi nga nga nga nga nga nga rang def 2 heures trois heures de temps voter ak fierté genn né voter na ak ñu fekk ci la sa biir kër. ñoo né la signeel ma bokul parce que ki jog di dem ci soirée yu Ndour bi suba ah dafa jël xaalisam dem fay parce que plaisir bi mu koy andil ki voter ji satisfaction personnelle bi mais nit bi day ñëw sa kër naan la signeel ma cette approche bi bokul mm. donc y a ben manque d'intérêt. bu sénégalais yi am ñu si gën a bëri xamuñu ko ñu bëri ñu am am ay signature ay ñu leen pare ne la limite dañ leen forcer la main sax am na ñoo xam dañ leen jox ay liste man am na ñu may waxal ñu ne dañ leen jox dañu dañu dugg si koñ bi romb benn Bouba Ndour bu toog fii ki n'a rien à voir avec élection yi wala dara il une carte nga ñëw jox ko kii jox ko benn 5000 wala mu nekk sa xarit nga ñëw mm-hmm. indi parce que ci dëkk bi rek laa gis ah li gën a graaw mm-hmm. mooy comment une personne peut mettre sur la table 100 000 signatures et donner ça à quelqu'un. Au nom de quoi Au nom de quoi Ça veut dire qu'il ne manque 300 000, qu'il ne manque des concours. Ça veut dire que c'est ce que ñàkkal fayda bi ñu c'est vrai qu'on a un problème tout le monde va être président c'est pas possible il faut que nous nous il le faut mais je pense que li peut solo dans cette histoire là bu faites ni état bi dafa def référendum imposer aussi bien calendrier aux opposants ci affaire parrainage bi teg ko ci mom dama wax tout le temps le parrainage bi avant gars yi di am élection physiquement dinañ sonn financièrement dinañ épuisé nga bëgg ci tek ay élection campagne électorale c'est très vicieux nit ki nak quand même Soko imposer ci période bi parrainage à deux mois à moins de deux mois des élections amna lo xamné dang ko ko waral que dang ko wara leeralal dara pour man revendication bu mun nit ki mën am warna légitime mais bu que ni conseil constitutionnel wala la société civile ñu tok fofu ñu nekk ci dëkk bu né là yoon la bu fekkee li nga wax tarfatal ay ni nekk na ci dëgg ma xamni on a un grand problème et ce régime là a des comptes à rendre aux Sénégalais. absolument wax naa leen waxati nako, waxati nako. ci histoire bu Sénégal récente bi rendez-vous yu ñu am ak conseil constitutionnel lépp dañoo pour man pour man dañoo nax dañoo ndërmeel affaire yi 2012 bii passé moo si mujj ci référendum cest à que euh, élection législative kii euh, candi troisième candidature euh, président Abdoulaye Wade mm. gis ngeen li ci dem ça dit que ci Afrique c'est très difficile que conseil constitutionnel taxawal ben affaire bu ki mais li am solo ba am solo moy munoo am problème bu melni ni ce problème là il existe et que doxuñu ko moom assez d'éléments bu mu ñëw ci ay télé diko wané il y a un problème il faut ñu xam est-ce que Bougane li mu yor nii teg na ci karamu ay nit ñu jox ko réponse quelles sont les man question mako bëgg poser moy que bonne réponse la conseil constitutionnel dox par exemple c'est très simple. Tu dois bénéficier. Tu as Il y a 9 chiffres qui sont 7. Si tu as un fichier, defe à lu pays dëkk bi dëkk ñàkk organisation war nañ la mën a def benn tontu boo xam ne su fekkee tontu wuñ la ça pose effectivement un problème. alors avant ñuy may mu tontu ci interpellation s'il te plaît il y a Adama Asso qui est avec nous nga va ni dina ci très rapidement qu'on puisse donner quand même au candidat à la candidature bi nga xam ni moo waral euh, hmm. coow li mu a tontu ci plusieurs interpellations quand hmm. même. Euh, merci Abraï. bon man maa ngi doon déglu pour xaar hmm. peut-être. Euh, deuxième partie pour mon mais euh, d'abord, je permettre ma ma féliciter parce que quand même c'est la première fois ma ma ñëw mm-hmm. je tenais vraiment à symboliquement vous féliciter. Mm-hmm. parce que jacarlo qu'on l'aime qu'on l'aime pas qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est imposé C'est le premier talk show au Sénégal aujourd'hui mm-hmm. donc c'est euh, loolu yéen bi ak le gens et tout ça ko ko et ça c'est important. Qui offre télévisuel bi Diakarlo, qu'on le veuille ou non est devenu. Mm-hmm. le premier talk show sénégalais. et mm-hmm. ça c'est très important qui vit vie média yi. Mm-hmm. Euh, parrainage lima dégg wax très rapidement pour man ñaari problème la benn bi Bouba aborde na ko. dañu jël décision instaurer parrainage alors que sur le plan socio-culturel le Sénégalais. Mm-hmm. malheureusement, Malal mm-hmm. n'ont pas été préparés. Mm-hmm. et ce qui est grave c'est à ce niveau Mon premier problème bi en aval ils ont été victimes. à travers lui Bougan, c'est tous les candidats à la candidature ont été même victimes de ce de cet aspect socio-culturel du Sénégalais. ak <coughs> sunu côté un peu njublang bi un peu voilà moy lu Bouba di wax. damay ñew kër Birima

il la deux après il met des chiffres fantaisistes il me remet man mi candidat à la candidature fiches yooyu centaine de fiches yooyu laay aussi et c'est là où il y a un double problème euh, chez les Bougane moi que su ngeen euh ñu mel ne ñoom pur ay Sonko ay Mimi Touré ñi nga xam ne et tout ça nous avons ko intégré dañu côté un peu farfelu sénégalais bi en amont ils ont mis en place des dispositifs par exemple je sais que Benno Bokoyakar ils ont pris 2800 jeunes qu'ils ont fait l'ensemble des 45 départements du Sénégal depuis 6 mois former ay nit tek affaire yoy li en aval Moy, mm-hmm. Birmi, mi suñ ko paramètre avec un identifiant numéro carte euh, CEDEAO bi. Mhm. nañu fexe fiche bu ñu jox. Mhm. ñu xool identifiant 17 chiffres yi. ñu jël ay xale yu xarañ ñu liggéey filtrer d'abord maanaam xaw def liggéey bi. bi fekk fekki fële. Mhm. conseil constitutionnel. mais lolu Charles waxon nako ça nécessite des moyens. loolu ñëpp mënuñu ko mënuñu recruter mais mais soo demee bay laajte réew. y a un minimum aussi. Ah, d'organisation mais bo amul bo yorul fichier bi ak yow. non non du fichier non yow say fiche laa wax. parrainage Premièrement. Deuxièmement, la plupart des candidats à la candidature, excusez-moi, ont été floués. Comment Par des soi-disant parrains. C'est-à-dire que bidonnage, oui, les, mais pas dans le bidonnage là, quand même. qui fichit. Mmh. Et tout le monde a été victime de mais, ça. Mais, là, euh, vous imaginez mais de... Non, non, excusez-moi. Oui, lolo, beaucoup n'ont abordé de J'espère que dinañ am temps bi. Des ah, sanctions contre mais bail na paré faut mais la jëm. Si si si. Kon kon de il faut ñu tabaxat. Si si. C'est l'esprit. Waxul lolo, n'a pas dit ça, il faut que tu dises. Xam nga paré wu ma, dama né. Lool moy premier problème, deuxième problème moy les doublons. Moy mm. que mu ñëwaat fait envoyé woon fiche keur Birima Birima aussi kenen ñew c'est-à-dire que mu la même chose donc man ma dépose a qui ki kenen ki la même fiche de la famille de il y a un doublon et au moment où on parle il y a 127 000 Sénégalais qui sont en faute aux yeux de la loi. Mm-hmm parce qu'ils ont signé double, doublement et Oui. maintenant le. maintenant conseil constitutionnel li faut buggaan faut wax foofu laay jeexale nous avons Nous Ablaye mhm. sur le dispositif mis en place un vous ne un système parrainage mais techniquement mhm. sur le plan technique mhm. les sept sages là excusez-moi c'est la première fois c'est la première fois que ce dispositif technique a été mis en place chez eux xamuñu ci lu bari. mais il se donne les non non l'État a mis en place oui li Charles wax la. waaw mais l'État a mis en place lo xamni quand même buñ ko maîtriser wul. Ablaye Ablaye ñoom ñoo war a mais ñom mais ñoom yenn problème yi yi ñu yi ñu soulever. c'est les sept de la société civile tay ñom mën até parce ñom ñoom ñoo fekkee projection yi ñom ñoo fekkee bi dindi sous-sol yi ñoom rek ñoo fa nekkoon diggante waa conseil constitutionnel ak candidat hmm. donc il y a une troisième partie et c'est là où je suis d'accord. Nous il faut ñu nous ñu gindi sénégalais parce que nous ñoo fait mhm. Nous avons projeté les fiches de Bougan, nous projeter les fiches de Sonko nous projeter les fiches de Maki. Mhm. donc nous, les sept là nous avons ñoo ñu ce qui s'est passé dans cette salle là lan avons ñu gis que nous ñii li ñuy wax avec les conséquences constitutionnel Si nous avons une version 7 mhm. Bouba c'est là où je pense que nous avons une d'accord alors s'il te plaît comme Charles je vous en prie Mylène, je reviens à Bougane euh, parce qu'il nous reste 33 minutes bu minuit jotee mënatuñu wax politique <coughs> dinañ ci dikkaat mooy deuxième partie émission bi d'ailleurs ak euh, li waral euh, Adama Sow teew fii ñu war a faram-fàccee CNRA ak euh, ni ñuy tënkee jamono ji ñiy yëngu ci wàllu tasum xibaar alors interpellation yi bëri na bëgg nañ ay leerlu nee nañ sept chiffres yi yi nga wax yi nga delloo ndax am nga këyitu méngoog neuf chiffres yi nga doxoon mm. mais surtout les perspectives ni ko Pape Djibi waxee mm. on voit qu'il y a une crispation politique actuellement le président bi mu jàkkaarloog taskatu xibaar après discours apparemment du reculer ci li mu ay kàddoom te yéen tamit euh, taxaw ngeen am nga fu ngeen euh, perspective yooyu lañ bëgg tamit euh, nga leeral au-delà des interpellations jërëjëf Pape Abdoulaye Der Je vais d'abord ci Adama mmh. parce que le dispositif organisationnel bi ngay wax mmh. Adama mmh. c'est pas un argument Pape Diop il a quand même un parti oui il a quatre députés, il a aujourd'hui 25 maires, il a 500 conseillers municipaux. On ne va pas nous dire que Pape Diop a une organisation. Aïssata Tal Sal a une organisation. Girassi, idem. Donc le problème n'est pas à ce niveau. Ce que je dire, c'est que la société civile. Bi ngay wax ay observateurs halls. dañu di uniquement des ma la rencontre que j'ai eue avec la société civile ñom ci sen bop wax nañ mané logiciel bi ñuy dugal clé yi ñoom xamuñu ñu ko paramétrer ça c'est un problème kan mo defar logiciel bi hmm. nan la ñu choisir informaticien bi tout ça c'est des choses yo xamné Il y a pas eu de concertation waxtaanuñ ci ak nit ñi dañu ñëw def lu leen neex imposer leen ko doublon yi ngay wax amul kenn ku ñu ne am nga doublon temps ne la ce doublon yi li moy base comparative bi Pape Ablaye Der doublon il dafa signé ci liste Bouba signé ci liste Charles signer ci liste Kenneth. bu ko defee nous en interne même on pourra vérifier xam nga wax nañ ay nit région non conforme mm-hmm. on a vérifié gis nous effectivement effectivement une région conforme Nous wax une ay nit ne amuñu ay électeurs Les ngay wax léegi mm-hmm. neuf chiffres je veux dire je n'ai pas dit c'est uniquement cette chiffres Vous nga bu fekkoon ne sept chiffres ça veut dire que nous ko copier nous imprimer mu dag, là vous avez des neuf chiffres les lu tracés, tracé neuf chiffres là. les lu tracés sept chiffres là. alors que nous on a donné intégralement en neuf chiffres. donc je dis ça c'est un problème bon encore une fois quelle kenn moitié ci tout conseil constitutionnel pour hmm. poser une question oui allez-y parce que jusqu'à présent je vois Ben ñaari feuille te li invalidé mm-hmm. c'est-à-dire que bon nombre la ngeen contester aussi non dama moi moi je dis j'en ai 30 000. j'en ai trente mille yoo contesté trente mille contesté ok et j'ai dit il y a un recours au niveau du conseil constitutionnel mais il y a une plainte contre X parce que je je je présume que sous mon fichier d'un côté tripoté. Hmm. le fichier a été tronqué. C'est exactement ce que j'ai dit pour répondre un peu à, à le Je continue, sur, les, hmm. sur les interpellations, s'il vous plaît. Oh, oh, oh. Juste pour tantôt, Fal Fal, Djibril. Euh, pour répondre un peu petite perspective, pour moi, de manière très claire, on n'est pas encore à un niveau où nous éliminer, voilà, où nous démal. Nous, on a vu des failles, <coughs> on a vu des erreurs, donc on a introduit un recours. Donc pour ñun nous ci course li am solo du man président Sonko mu may avant parrainage j'ai envoyé des gens nous dem gisante ak pour voir sur un pôle donc man li ma intéressé Sénégal la man li ma intéressé du lu nit di ñam man li ma yor maa ko liggéeyal suma bopp ñaqal ko suma bopp je suis un jeune lu ma am suma ñaq bii moom ma ko may musuma taxaw fenn kenn mës taxam sama soxla du Ablaye Wade du Macky Sall ñu ngi may dégg du fenn fu ma mus a taxaw ci kenn ci ñoom ne ko lii laa soxla wala defal ma nangam télé laay waxee ñu ngi may dégg

ma no, nga gis nga Sonko gis nga euh, pour pôle encore une fois est-ce que non non non non non euh, j'ai toujours été de ceux qui disent. te plaît j'ai toujours été de ceux qui disent. comme parrainage dañ ko def ngir kenn parrainage. ci ñu naka ñuy parce que mu nekk ci logique gu éliminer day éliminer ñu bëgg éliminer. Mm. donc donc lolu mom moy xalat ak yene bi nga xamné man mom la amone depuis le départ. Euh, Charles dégg na li nga xamné mom nga wax moi je suis en phase avec vous Malal buñu ñu nëxal xelu sénégalais yi ki jël ki am 2 millions ñi taxaw né am nañu 2 millions conseil constitutionnel mënu ñu fa yóbbu 2 millions. En fait, c'est ça. On dépose. 66 000. Exactement. 820 nga voilà je pense que l'ordre doit jar ñu l'air. c'est important ba c'est pas parce que tu as 1 million 2 millions. que c'est 2 millions que tu déposes. loolu je jar a leeral. ma ne non amul amul amul remplacer. da ngay da ngay bo, bo, boo kiiwee non il a été il a été acteur quand même war nañu ko mën déglu mu wax. a été balma hein? euh, ma ne ki def 2 millions. y yóbbu 2 millions oui mënoo yóbbu 2 millions. xam nga kan moo mën remplacer. Hein? ki nga xam ne bi ñu vérification bi. Mhm. dese na la 53000. c'est-à-dire 8 pour ce yi. li nga dit, nga yegg ko bariwul. oui ñooñu ñoo mën remplacer moo tax ñu lay wax rejet pour autre motif. tout ce qui ont des rejets pour autre motif. en deçà de 53000 mënuñu remplacer remplacer motax conseil constitutionnel bi ñu PV yi mhm. ñu ne ñett dong ñom ñu mëna indi wat mhm. Idi euh, ah donc ñi ci des ñëpp dañ né leen yeen mënu leen ñëwaat remplacer mais ba amul document bo xamné dañ né la yow éliminer parce que yegguñu ci lool mhm. alors donc pour moi, c'était hmm. important de le de le de le préciser hmm. li nga vous aussi moom la ñu Nous, ñun ci 794 000 ce qu'il faut comprendre c'est que le jour hmm. où le président sortant organisait son investiture nous on a osé organiser notre investiture au stade Amadou Barry de Guédiawaye amul kenn ku dul ñi nekk ci ku ci dem song Amadou Barry bu Guédiawaye joxuñu fa nit un franc joxuñu fa nit t Les gens sont venus en personne responsable. top, déglou, l'ignolendewa. qu'on ne défend Moi, j'ai parcouru le Sénégal. Mm-hmm. J'ai fait 90 000 kilomètres. J'ai fait 2150 localités. Mm-hmm. Amul fuma tegul suma tank. Bonjour, comment c'est parrainage? Demain, il est parrainage. N'écoute man ça mon problème. Parce que l'immobilier, je sais que c'est 53 000 ou 66 000. Non, non, non, non. Mm-hmm et suñu borom firndel nako biñu ñëwé ñu parrain yi dañu ñëw indi ab huissier mu constaté ko ñu ñëw un PV d'huissier un agent assermenté ñu yëkëti PV wané ko ñi fi wax def nañu nangam nangam nangam kenn prouvé wu ñun dañu am preuve pour loolu donc nit nak mën nga gëm wala nga ñak gëm lolu kenn mënu si dara manipulation il y a pas de manipulation mm faut ñu nangu né Sénégal kenn ku nekk am nga sañ-sañu juk bok ci ñi koy defar ak niveau ak statut bo mëna tollu nak nit moy xeeb boppam rek japp né bok ci mais ku né war nga mëna a ci loolu et man encore une fois je ne suis pas contre le parrainage c'est important parce que pour man il faut mu am filtre oui amul fenn ci aduna foo xamné filtre dafa am solo donc c'est important que ñu am niveau de filtre mais opportunité bi tout le monde sait de manière très claire que c'était fait à dessein pour répondre à Papis l'histoire du parrainage les 25 candidats 25 candidats même Nigal, même ils ont rejeté l'opération du parrainage je dis même Nigal, Idriss Idrissa Malik Gako, Ousmane Sonko pur à l'unanimité ils ont rejeté cette affaire. alors il me reste 23 minutes. c'est mon deadline Charles Faye. très rapidement avant non, wow, parce Papa que aussi. parce que tout Vous à l'heure les deux prochains. parce que tout à l'heure j'ai l'impression que ils étaient partis sur des chiffres mirobolants alors que 66 000. exactement très rapidement il est, très bon de le dire et que le mm-hmm. yow est 127 000 ça donne 10 10

dañu jox sénégalais Nous xamanteni ñu xam djubbi wala yu démé non ñu xam ko ci sénégalais ke xamu ko nga jox ko ko mais lo def sénégalais ga loko indil loko won est-ce que tu as servi ta démocratie mm. je pense que de ce point de vue amna ay questions yu essentielles yu ñu wara poser c'était ça la démarche d'arriver justement à ce que le sénégalais se fourvoie Mhm. loolu le doon objectif bi là il y a un vrai un véritable problème bon, xamante ne der je veux dire. mais foo faut lu waa lu lu war a ji loo xamante ne électroniquement lañ koy liggéey. Mhm. mais électroniquement lañ koy tàmbale. oui man mënu ma voilà parce que bu may def ma carte d'identité moi ID qui m'a coûté huit mille et quelques francs ou 3, trois et quelques francs c'est la carte d'identité la plus chère au monde boo xamante ne ID bi rek la ñuy am numérisé dafa lecteur Fi mais cest ça euh, l'esprit démocratique vous êtes 25 à concourir vous êtes 25 à avoir lu un lecteur et eh oui ta carte d'identité elle a été faite pour ça elle a coûté 50 milliards de c'était pourquoi c'était pourquoi ben, très bien, tu viens exactement. Il dit son carrément, double que c'est lecteur. Si jamais tu as déjà fait pour quelqu'un, oui. parrainer quelqu'un, nous rejeter quoi. Exactement. Ça veut dire, là, le moi je suis un démocratique, démocrate pur et dur. Mm-hmm. dafa am loo c'est ne taillé sur mesure et loolu moo fi j'ai a jeex. on a compris merci beaucoup. alors Pape Gibril. très rapidement. waaw en fait man li ma si bëgg a wax rek mooy bi may poser question par rapport ak perspective yi. Mm-hmm. ak coow lii ni mu bëree nii. cest à dire que fondamentalement conseil constitutionnel bi moom moo nekk en cause moom moo nekk au euh, box des accusés ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko yilif te loolu waxoon nañ ko fi ñu fi njëkk a yëkkati question parrainage mm-hmm. mooy que ne conseil constitutionnel bi nga xamante ni moom lañ doon yaakaar mu gindi Sénégalais yi buñ ci eggee Moussoul nek au rendez-vous par rapport à ce que peuple sénégalais non seulement Moussoul mais je suis même tenté de dire est-ce qu'il ne faut pas brûler le conseil constitutionnel <laughs> avant qu'il ne brûle le pays et je pèse mes mots L'état mort entre validation ou non de la candidature de Wad, ça ne nous a pas coûté moins de 15 morts on va changer plus les peut-être. On va oh, chercher. Oh, oui, oui, je pense qu'il c'est une image qu'il doit. Il précise que c'est une image. En fait, parce que il est assez responsable. c'est une image. en fait, je précise une autre Vous faites une image là parce que ñun ñii ñëpp toog fii. fukk ak juróom yooyu dee kenn amu ci mbokk loolu moo mais ñi ngi koy mesurer tey j'ai une pensée toute particulière à la famille de Mamadou Diop bi à la famille de Fodé policier boo xam un jeune policier boo xam brique lañ ko dóor ci bopp bi mu wàcc liggéey T'es lolu encore une fois conseil constitutionnel la par rapport à la validation ou mhm. pas té politiciens encore une fois ñu ci dugaloon askan bi té combat bi fiñu jëm motax bi may wax perspective légui lolu la doon plan d'action parce que tamit fofu la ñu jëmaat parce que ci réforme yi nga xamante amna mars 2016 absolument dafa wax conseil constitutionnel lu mu génne ci décision la té amatul voie de recours absolument réforme bi lolou la wax. Mhm. et malheureusement quelqu'un comme Bougane Gueye Dany aussi lui aussi je le mets systématiquement au box des accusés parce que référendum bob biñ koy def aussi daf ci japp en fait avec son média nga xamanteni ni dem na ba ñaani bañ naa clip biñ ci defone ak yépp systématiquement dañ ko tere pour ñu jallalé ko foofu. opposition à un moment donné fofu dafa meloon ni euh, chasse gardée pouvoir bi la ça aussi il faut le constater et s'en désoler. Donc, encore une fois, c'est... Je suis désolé, je encore une fois... Non, pareil. Ah non, je suis désolé. Balbon pareil. Allez-y. Donc, euh, aussi, je me rappelle avec M. Cheikh Tidiane Dieye ñaani bi dem nañ ba clip bi ñu ñu wax né bañ nañ euh, mais déjà euh, mon ci bopam quelqu'un comme Amadou Ba dañ affecté une équipe de Sen TV bo xamanteni mom moko don top ci élection bobu pour dire tout simplement que jeu bi nga xamanteni ñom dañu leen jël par rapport à leur propre jeu parce que à un moment donné à un moment donné c'est pas un débat de personne mais c'est une question d'acteur ci ben jeu bo xamanteni retour de bâton bi fay am jamono bu nek leneen li nga xamanteni ni bëgg ko wax par rapport à la à la à la constitution Moi, li gëna récent Moi, la réduction la réduction du mandat du président Macky Sall hmm. Faut it constitution ah, dafa def le conseil constitutionnel dafa def lu grave fof ah, ci réduction ou pas je ngi dégg ñu jógee ci ñu daal di à 48 heures des élections législatives conseil constitutionnel gagne décision mu légui léegi mën nañu voter ak passeport ak permis ak lépp pour xamante identification la sans problème sans problème nga xamante amul kenn ben consensus bo xamante ne am nañ ci waye yemuñu ci sax li gëna grave mooy ñu toog ba jëm ci législative yi ñu xëy rek ñu ne la DAF un état responsable comme le Sénégal ñu ne la DAF deux cent mille cartes électeurs machine bi panne na mënul génn ñëpp toog réew bu mel ni Sénégal un état responsable ñu ne machine bu panne 200 000, nous n'avons pas 200 000 cartes. Hmm. Donc pour dire que le Conseil constitutionnel n'a jamais été au rendez-vous, et ce qui est grave, c'est que le président Macky Sall euh, sécurisé en 2000, en 2016, ne amatul benn voie de recours donc leneen li li ma interpellé léegi Bougane dama ci une yenen question parce que Bouba daf ko wax léegi ci waaw ci rapidement pour ci et c'est important que nous poser ko c'est quand on prétend à la magistrature suprême au-delà du processus on doit être irréprochable Et nous avons Bougane ça aussi je dois le dire nous avons ay enfants, parce que nous avons fait un chômage nous avons ay xale employé nous xëy dàq de façon arbitraire parce que tout simplement nous bëggoon créer créer syndicat Nous yooyu yóbbu ko inspection du travail nous ko yóbbu ko tribunal daan li et c'est une faute boo pour moi commettre tu ne peux même pas tu ne dois même pas prétendre à à une commune ou à une région Moi, mënuloo dàq ay de façon arbitraire et tu changes les contrats parce qu'ils avaient des CDI yi nga yóbbu niveau stage ne moom la gagnons am du travail gagné la li nga aujourd'hui mu yóbbu cassation ça aussi en tant que d'abord je suis très sensible et très touché parce que je suis un jeune comme eux je suis journaliste comme eux su ma ko ko waxul dafay nuru donc euh, mais sans corporatisme quoi. non le corporatisme <laughs> je suis sur les oh, faits. D'accord, il y' a pas de souci. alors euh, euh, Birima très rapidement rek Nimolo Vous bu minuit jotee quel que soit qui wax moom dinañ arrêté. merci merci Der xam nga Sénégal sàcc raw naan wuub sàcc bi jaarale fi dem na fi yomb xam nga Der dañu la laaj ay parrain. mataloo nga tricher. kan moo tricher. bugaan gi nu mu gaaw rek moo tax ma lay laaj. tricher naka. créer ay réseaux sociaux. créer ay fausse nom. créer ay lépp trop trop dossier tout lépp mais na ko démentir gis nañu bind ko ci média yi. nga leen porte ñu ko bind man damaa lire. te je crois euh, au média sénégalais. mooy lan li mu yor dama ne moom dafa yor média man dama am naa droit gëm sama journal réew te gëm naa ko. la ñu bind ci moom fan yi yéen liir ngeen ko. Euh, yéen ko ak lépp ci moom <laughs> liir ngeen ko. liir ngeen ko journal see ko bind leen porte plainte bon yan yan yan journal non liir ngeen leen bind ci mm. moom. li ma non xam naa ne ngay dund fichier waaw non fichier non day leer fichier fichier jooni jooni biñ koy ji jiñ ngay wax. voilà c'est ça wax ko kañ. xam nga lan moom ba des.

culture démocratique boobu te yéen nañ xoolantelee bët ci bët même boo contrôle parrainage o gis naa ñu ko contrôle trop ci mais finis bi ñu nombre de candidats déclarés yi dañ d'accord. 130 candidats dañoo bëggoon a yàq élection yi. daa ñu yoroon seen xaalis financé pour de telle sorte que. élection du mën a même bu dee ñoom dañoo contre Macky Sall. te ñu dañoo bëgg a combattre mais que du nguur gi moo gën a war a não a mën financé. nguur gi dafa am na ci réew mi li may wax kenn du ko dindi Vous parlez à woon élection présidentielle d'homme. si on va se retrouver avec 130 candidats. 150 candidats. aucun Sénégal mënul def élection 130 candidats. tu peux être contre Macky Sall mais quand même le système doit être protégé par tous les Sénégalais. la démocratie doit être protégée par tous les Sénégalais. et au finish la réalité est que si quand Charles fait te dit que oui on doit faire des parrainages ce qu'on l'a fait nangam na dit xam nga loolu xam des il n'aime pas Sénégalais il n'aime pas le Sénégal voilà même rek dama ni mais loolu loolu loolu ëpp la on doit saluer cette parrainage. les mm. pas d'accord bon mais cette fonctionnement bon mais cette dysfonctionnement même ma bon ensemble nous nous corriger mais moi je dis que parrainage indispensable. oui nous le principe mais a été le premier à te dire qu'il est d'accord. ok il est le premier à dire que d'accord très rapidement en deux minutes. je ah non c'est quoi ça onze minutes. non, mais non, non. ma on du temps solo dans cette histoire là Bougano Sonko Modi Kenyao, nous ñoo décidé def politique nous ñoo décidé briguer suffrage au sénégalais il faut qu'on leur mette la pression mhm. c'est-à-dire dafa am ben affaire bu am solo pour man parrainage ça n'appartient même pas à régime bi nous, on est dans un pays malade mhm ñëpp mënuñu ne président. moom laa je reviens la semaine dernière. xam nga xam nga la mooy sam problème. Bougane il a un un programme. gëm sa bopp. wër Sénégal yëpp wax. ci une différence Si ngeen nekk ci opposition bi. te bokku leen gis-gis. mais il faut pas s'opposer pour s'opposer parce que xam nga waa ji toog fi keroog Cheikh Alassane Il dafa ne Bougane seet cinéma. Hum hum pour que pour te dire affaire bi nous paradoxale sama xarit la dugg na fi genn fi fou légui fou ma fu ma laat le gars demna na Macky Sall rejoindre ko. c'est-à-dire que xam nga pour moi xam nga pour moi. non non non pour moi le sénégalais je pense que lolu c'est important pour man sénégalais bi. Mm. xam nga kan lay voter mm ki nga xamné même buñu nous opposition bi. té bokkuñu gis-gis. duma la rek pour yok ay nit yow langue politique bi. il doit faire la différence entre kan et kan. pur mais moi j'étais sûr que dañuy jall xam nga ils ont envie de parrainer. ils sont très organisés. non arrête rek dama ne ñi ils ont mon la don wax dafa mel ni ku jóg dem di voter ji. ñom formule bobu lañu jël. ils ont envie de participer. Mm-hmm. les les les militants de. Sonko Ousmane Sonko. Mm. comme le nom l'indique. les patriotes là. so gissé sen façon cet engagement. Mm-hmm. they want to do it ils veulent faire ça. mais est-ce que du loolu motax tax amuñu problème. Mm-hmm. parce que pour moi une personne qui n'a jamais fait de politique avoir la prétention d'avoir un million de personnes quand même si bénéficier fichier 6 millions c'est quand même prétentieux. mais c'est possible. Non, non non non vice. non dama c'est prétentieux je n'ai pas dit c'est impossible dama aujourd'hui li am solo ba am solo mon moi. ñi ci langue politique aussi il faut que nous nous ñu man xam nga li ma gën ci ci mbir mi on n'aura pas 100 et quelques candidats. Hmm. mais on aura 100 et quelques candidats xamul tax. Hmm. képp ku amoon benn prétention bu ndaw pour nekk présidentiel. Hmm. président au Sénégal. bu candidat yi demee ba tu amènes tes bagages feneen pour demain. nga am benn poste xam nga tax. vision bi nga xam ne programme mhm. parce qu'on va se retrouver avec 135 faux candidats des gens qui ont ne mënuñu nekk président mhm. mais ils ont ils vont tout faire mhm. pour beaucoup ci course bi ba finalement le programme de nos qui nous intéresse le programme qui nous intéresse fi nga jëmee réew mi te fi nga jëmee réew mi ñëpp parce que yéen discours bi ngeen di wax foofu laay daanale discours bi Bougane Gueye Dani di wax bi PUR di wax bu Ousmane Sonko di wax si ko exécuter ñu bari duñu and ak langue politique parce que discours de rupture là. absolument comme discours de rupture donc si man euh, dire que si processus bi même ngeen wara logique par rapport à une vision keneen koo xam ne da koy jax da koy jax day yàq programme beeg yooyu ngeen jël ko teg ko on va retour on se retrouver avec 135 personnes qui vont nous fatiguer. ñi nga xam ne waruñu def. amuñu benn chance pour gagner nañu aussi am na si ñu bëri ñoo xam dañu war a retiré wu. Mm. bañu aussi jël affaire bi def ko affaire de. positionnement bi ku nek dem position bi nga jël par rapport ak diw pour demain ma nek ministre wala ko ma donne ceci ou cela te loolu lañu nara am problème donc parrainage bi régler na une partie du problème mais benen problème bi ça c'est bon il nous reste juste 6 euh, minutes Bougane euh, juste pour répondre mm-hmm. grand nous on est logique mm-hmm. dans notre démarche mm-hmm. bi dem ba ne wax ni ñi mën nañu ànd ak ñom dañu dem séti ñi nga xamné ñok ñom ño bok xal ñok ñom ño bok envie et ño bok discours avec Cheikh Alassane Sen, Non, non, non, non, on parlait de... Non, ah, si, parce qu'il t'a reçu si, et il est... Si, ah. démarche, si démarche bi me proposé, oui. Ah, mais dem na seeti Macky Sall ah, ba noppi bi na may. xam nga nit ku nek ak gëm-gëmam. xam nga nit mënoo tak nit boom ne ko kay top ma. ñun ñi ñi waxtanal moy ñett ñi ma wax ne ñu ngi waxtaan parce que bok nañu xalaat ñu ngay waxtaan ci lolu. Mom si bopam ak ñeneen ak ñeneen yamalewu mako ci mom parce que ci biir wax bi wax naa la euh, ku melni ni Agibou wax naa la ku mel ni Euh, Thierno Alassane Sall wax naa la Thierno Bocoum. mais ñi nga xam ne ñi nga xam ne ay. en fin de compte tu rejoins qui. non non je ne rejoins personne. Hmm. je suis dans la course je rejoins personne. waaw mais je suis dans la course bu ñu yeggee ci cappaandaw ko loolu wax la. Hmm. waa ne weesuwul sa nettali sa gént ak sa géntu ma. mais mais rejoindre Macky Sall c'est c'est non non ma ne loolu loolu yegguñu ci waxuñu ci loolu man waxuma ca parce que du ma xam nga man sama sama objectif. Hmm. mooy dindi Sénégal politiciens yi nax réew mi. politiciens yi nekk ci naxaate c'est ça mon objectif ñi lay wax tey dara bu ëllëgee ñu génn ci tey boo jàkkaarlook yow buuba ne la diw mii politicien la li ngay njëkk xalaat mooy du waxkatu dëgg buñ nee diw politicien la li ngay njëkk xalaat mooy du ngor nit kuy waraateel buñ nee la diw mii politicien la sa xel li muy njëkk xalaat mooy nit kuy dunde alalu askan wi la mm. kon man jikko yooyu nit ci ku mu nekk jàpp naa ne waruloo bokk ci ñi nga xam ne dañuy jiite askan wi juste pour répondre un tout petit peu monsieur Fall a dit ñaani bañ na jàllewuñ ko jàllewuñu ñaani bañ na à des médias comme ni ñu jàllewul ñeneen ñu ñëwoon on était en période électorale et on a dit de manière très claire ku fayul duñu la jàlleel c'est exactement ce qui s'est passé am c'est ça c'est ça au niveau des médias xam nga euh, vraiment euh, euh, a payé au même moment Moussa si était dans l'opposition il avait payé et il avait une équipe également avec moi. donc il faut que les gens arrêtent d'y faire amalgame Bougane c'est un jeune Sénégalais qui s'est battu reporter là où comme journaliste ram ñaaj ba amul kenn ku mën taxaw fi ci réew mi ne mako jappalé ci nangam je me suis battu suñu kër buñu añan duñu reer bu ñu mm. je me suis battu pour être là où je suis mm. et luma gëm la donc amna ay employé au moins man amna ay employé les gens à qui vous avez fait confiance jox leen suñu réew dañu mës taxawal kees ku mburu et pourtant vous leur avez fait confiance il faut arrêter ce corporatisme là non c'est pas non non non non mais ma rek Maïma. il y a eu un problème comme il y en a ici à TFM comme il y en a là où tu étais c'est des maisons de presse il y a eu un problème les gens sont allés en justice dem une justice gagné comme man dem justice c'est quoi le problème je veux dire où est le problème. mais je vais le dire non non je veux je veux savoir où est le problème. mais je vais le dire non je dis de manière très claire il y a des gens est-ce que je peux dire le problème. non j'ai dit oui franchement c'est vrai que de non oui oui pas l'objet de non non c'est pas non non absolument je me suis je me suis battu je me suis battu pour être là où je suis. je, suis reporter. Hmm. ba yexi fi reporter c'est ton problème. ku dee ci c'est ton problème. c'est aussi simple. Serigne Babacar dafa am ku nous ne suñu salaire yi daf poser problème parce que un salaire yi da ngeen ko yemale ci te salaire. Non, tu penses que c'est ça le débat Non, non, non, non, non, non, non non non non non, non, non, le respect que je te non, non non non. non, non, non, non, non, non, de ta part ça je te. non non non non, non non non non non non, non, non, non, de la corporation il faut du respect non, non, c'est important non je dis. les gens qui sont salariés. ne sont pas non non non je suis pas à ce niveau. non je non, non, non, non, non la moralité non moralité moralité. non mais non, doit pas non, toi. moralité non, ce que je retiens, moralité. je dis, euh, moralité. De façon, Quand, il dit, quand il dit, vous êtes patron de presse, vous êtes patron de presse, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, vous ne méritez pas d'être, vous ne méritez même pas de diriger une commune. C'est-à-dire ça, c'est un jugement de valeur. C'est pas normal aussi. C'est un jugement de valeur. c'est ce que vous avez dit. ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Dans une minute, c'est fini. Dans une minute, on est à minuit. Dans une minute, on est à minuit. On arrête. Ah, man may jàppale liggéeykat s'il te plaît Birima Birima syndicalisme mais sa syndicalisme bi du fii nga koy Birima non non non non non c'est pas s'il te plaît non du plateau syndicalisme quand même on n'est pas là pour ça déglu woo ma grand je paye des salaires comme toi déglu woo ma s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît il a la parole oui mais déglu leen ko mënu ma nangu nekk syndicaliste ñu sous-estimer mais Birima Birima mais Birima si tu veux je te promets si tu veux micro place quand même me dérange pas du tout l'émission à la fin je dis ce que je veux s'il te plaît il faut il faut encore une fois li ngay au moins les Sénégalais connaissent ta position. xam nga yow au moins les Sénégalais connaissent ta position en venant ici je xam naa ne nii rek nga ma mun a accueillir <laughs>

sant Birima Birima comme ça gaawu ko fi du lañ koy attee mais c'est pas c'est même pas non dans les règles journalistiques c'est même pas vrai c'est pas comme ça que ça se fait mais c'est même pas vrai mais même su amoon du fi lañ koy attee mais da du dëgg wan ñu waxul deug s'il te plaît man man duma saga nit moi je suis bien éduqué man dama def dara nek nit kuñu ñu yar du ma saaga kenn. la preuve la la preuve la preuve. Ah. chaque fois bo déggee Bougane liñ lay ndik wax. moy nit ku dal la nit la kudul kudul attaquer dul kenn. je suis désolé s'il te plaît wan ma li ci li ci ordinateur bi qu'on puisse passer à autre chose. on a euh, plus qu'une minute li ma bëgg wax mm. euh dañ ma doon laaj légui la base comparative. Mm-hmm. Mm. la base référentielle. cette base référentielle elle est là. c'est ce fichier qu'on a donné au conseil constitutionnel. Vous avez vu les logs de contrôle. 17 et 9 chiffres. C'est-à-dire, moi j'ai une société informatique. Pour répondre un peu organisation, organisation bi sa waay wax. lii Pour lancer la recherche tu as mis 17 moi carte d'identité 9 chiffres moi moi carte électorale. fichier bi nous du début à la fin il y a eu aucun problème. C'est pourquoi, Birima, Conseil constitutionnel quand même, c'est une institution dans ce pays. Si moi je décide, man dama jàpp ne ëllëg bu ma waroon nekk njiit am na loo xam ne du ma nangu ñu koy def ci ci réew mi donc man du ma jël yenn accusation di ko teg ci ndodd conseil constitutionnel du ma def loolu. d'accord merci kon bu ma la waxee ni lii am na li am solo xam naa ne du ko lijjanti nii parce que yoon dañu ko tënk. Mm. di ko jaarloo yoon ko ci mais au moins le, mu meuna rectificatif parce que conseil constitutionnel nga euh, conseil constitutionnel ñun ay nit ils sont outillés. Vous c'est fini xam nga li tax. minuit Oui, ma tamit may voilà c'est normal loi. minuit fi mu nek ni d'ailleurs loolu lañuy waxé ah, juste après la publicité loolu lañuy waxtané conseil national de régulation audiovisuelle mi tënk fileek wèr média yi ak li nga xamni fi lañ ko mujj yamale te doyaluñ ci publicité ci diggante marak ma